waaw xam nga mbir mi dafa doy waar te dafa dara taxaw seetlu nag euh, ndaw ñi nañu tuubaat baalu àq Fatima ndaw ñee doon taal réew mi te nag mënoon ne cim réew ay nit liggéey seen alal ñii seen bàyyi bàyyee leen alal parce que maa ngi jël benn boutique bu nekk Touba ñooñu bi ñu koy taxaw bi ñuy formé boutique bi seen papa moo leen bàyyee alal ñu def ko genre comme boutique gu kii yi euh, pour bañ a publicité Auchan yeeg yii. Mhm. boutique bu mel noonu lañ ko tabax ci wetu boulangerie Xaadim Bousso boo ko def dépassé tuuti. face à face. waaw communauté kii Touba bi mairie bi dañ koo dajji taal lépp sàcc lépp te alal leen doonoon la. ngay dem ci yeneen dëkk par dëkk gisoo ci benn paa buy dem dajji magasin wala benn maire. xale yi rek ñoo doon def loolu deux mille vingt et un deux mille vingt deux. waaye ci xale yooyu itam non dama la bëgg a itam ñenn ñi dañ leen encouragé parce que bu ñu demee sàcc ji daaj sàcc itam. Ah, yenn ci seen ay parents. ñooy gàddu bàyyil ma ñëw rek xale yi ñoo doon def loolu. am ku taxoon ñu koy def ne dañ koy jaay doole. am ñu taxaw ne leen du nii ñuy falaxe di falaxe ba yàlla seen loolu barkeel bañ falu léegi xale yooyu ñoo bëgg a toog ci jàmm am jàmm. di ndaataata lax gu kon fu yàlla ne ba ñuy def loolu yàlla mënoon na ko saafara de toog seetaan ay nit yu bari mois de mars lañ torox fa lañ doxee ñàkk ba faaw te amoon na situation bu baax amoon na benn boutique bu nekk pikin xale bu jigéen bi cinquante millions la fa investir lépp lañ yóbbu mu dellu à zéro tey jii banque yaa ngi koy topp te nag dinaa leen wax benn Touba moom lu wér wóor saay-saay du fa màggatee ku jubadi du màggate biir tuubaa loolu hmm. mag ñi may dégg xam nañ da ngay jub baa nga dee hmm. Touba nga nekk fa xale di def yëfu ndëngate yëfu jubadi yëfu reewande ba màgget fa ñu naan màggatum wuyu la amul tuubaa doo ko fa gis hmm, mais Matlabul Fawzayni Sëriñ daa moo ko bindal boppam ne moom laa aaree Touba daa am borom doo ko fa gis mosu faa am munoo dox ba ñele kii magum wuyu la fii la màggete fii la defee ndawam fii la defee jubadeem ba fii la màggete mu ngi nii dëkk boo dem nag am na fa waaye Touba amu fa te ndaw ñi def nañ fa jëfin boo xam ne ñaaw na ñaawaay boo xam ne leer na borom Touba loolu neexu ko ba muy taxawal tuubaa loolu taxul woon c'est dëkk boo jël lu mel noon am na fa moo tax irrigation classée si dëkk boo jël laal nay ndaw dama ne ndaw ñi nañ jël si waat tuub ndax xale bu amagul fukki at ak juróom nan lay amee problème wu crise sociale bay dugg ci gaal. ma tax mbir mi balaa la bu wàcc. ndax borom ñeen fukki at borom fanweeri at ak juróom d'accord kooku yor na kër yor njaboot waaye fukki at ak juróom. fukki at ak ñeent huit ans juróom-ñetti at. mais yooyu ban problème nga war a mën a am. Mhm. ban surtout ça yow yow jàng pareegoo pour jàng sax mhm. jàng sax ba nëgul. nga mën a dem ci gaal bu mais quatrième seconde Bamba Bamba. mais mais Bamba foofu du ma ci mën a am huit da ngay jël gaal am quatorze mais mais dama dëkk bi aussi la ga la ñi nga xamante mooy ñi fi nekk dañoo toogul ci wax dëkk bi dinaa ci ñëw ñi fi nekk dañoo waragul booy yaakaar gu tax booy toog fii xam nga booy dañoo xool yi ñëw nii lii raam si ñam ba la jëm booy dañoo gis ne espoir amagul dañoo gis ne politique politiciens yi seen bopp lañ fi nekk ak ñu àndal booy gis ñu gis bi dëkk bi jafandiku bi ku fi toog ñàkk dama ne dëkk bi ku fi toog dañ ko waxante ku ku fi toog ma daana loolu ku fi toog ñàkk pexe la fi bàyyi même moodu moodu yi léegi même bu ñëwee duñu fi yàggati parce que ñii dañoo nekk si xuloo politique politique suba ba ngoon ginnaaw suba ba at bi dee te duñu wax si xale yi dañu wax si xale yi xam nga balaa bi wàcc na seen kaw ba moom wax naa ci ba pare te ñaan yàlla balaa boobu teggee ko ndax lii balaa la mais ñii di politique nag laajoon réew mi ne bu ñëwee Sénégal moom sawaay bu ñu egsee jeex na ba nga gisoon ay moodu moodu naan dañuy ñëw Sénégal investir nga gis ñuy jug naan jàng nañ ba pare léegi moom am liggéey ndax l'homme qu'il faut à la place suñu CV baax na d'accord te it ñi ngi doo ko gis quatre vingt personnes benn bëccëg ñu seppi leen ci géej gi ñuy ay néew ñu ngi koy man de maa ngi koy doog ko gis ci immigration clandestine. te gaal gi ba mu réeree yàgg na de. mas naa toog ci benn émission ma ne am na gaal ko départ Mbour ba léegi kenn gisu ko ak léegi def na deux semaines. parce que li tax ñu fore néew yi mbuur parce que dañ doon dëppaat. dañoo dem ba mënatuñoo dem ñuy waññeeku këpp ci yoon bi mais ba ñu demee yàgg na. ba waa mbuur dalee wax ne suñuy doom dem nañ kenn xamul fu ñu ne yàgg na du tey boo demee nag wër wër wër te gaal gi dafa si charge deux cent et quelques personnes dem nañ mënatuñ dem ñuy wàññeeku ci wàññeeku bi nag la gaal gi këpp parce que bu doon dañoo départ rek mbir mi jóoru moo lay gis leen wàññeeku bi la gaal gi ba mu demee yàgg na auto te Fass bi fi gaal gi demee yàgg réer dañoo dem taal quai de pêche ba ba ne nguur gee ko wariwul tey gaal gi dem na réer mbuur déggoo ko fi taal déggoo ko fi toj déggoo ko fi yàq xamul tax mënatoo ko def parce que ña taxoon ko koy def ñëw nañ fi ne ni kersa moo am ndaw ñi mënatuñoo génn di xeex mënatuñoo yàq mënatuñoo toj xam nga lu tax man nga sama classe gi la xalaat su ma la rombee ngay teg puna dinaa la mbalak man ah sa waay lii moom gën a teel xanaa waxu woon cinquante ans la maanaam dañoo gêné wu sax pour jotaay ñuy mën di waxtaan wala ñuy ñuy mën a wax seeni problème di ko mën a génn ko faj parce que mënatuñ ko xamul parce te mënatoo dem kenn di ko naan dimbali ma parce que xam nga ñoom dañoo woote benn gatsa gatsa boo xam ne autorités yi yeeg nit ñu baax ñi ñi leen daan dimbali dañ leen cee fekk si gis ñi bañ faloo ba tey bépp borom daraja bu newoon ci réew mi ñi ci gën a bari ku ci nekk dangaa ngaa téye sa alal ku ci nekk ka nga doon jàppale moo wëlbati ko yoroon paaka di la gor sa ginnaaw gis ñu ci bari immeuble yi ñu doon dëkk nekk ay étudiants di jàng ña ko doon fay dañoo wëlbatiku sanctionné leen bëgg a taal seen kër gi élection yi. Mhm. ñu tamit fexe nañ ba génn ci élection yi ci jàmm ku nekk dajale sa mbool sa nit say am di jàmm sa dëkkandoo fas yéene ànd ak ñoom dund ci dund bu baax ñee nag comme ñoom ña ñu gisoon visé leen ñu tey ñi ngi fal seen i doom boo amul CV passif duñ la fal soo ci bokkul ci projet bi bokkoo te gis nga projet bi ñi ci bokk bariwul de daam ñoo xam dañoo ñëwoon sot si sympathie loolu lañ naan ay sympathie ñoo ñëwoon sotle leen. sympathisant waaw Macky Sall ñu ngi jàpp ñu tëj tey. boo jàppee mbokk kii famille bi yëpp. sot sot la. léegi kii doomam bu yoree benn CV ne moom jàng na am nay diplôme léegi dafa war a déposé. famille bi yëpp ne nañ jàppale jomaay bu faloo léegi suñ doom ji am liggéey mën a yore kër gi. ndekete ñoom buñ faloo papa yaay doom. te yow boo ko ci projet bi de. xool damaa bokkoon si combat bi. voilà dañ maa tëjoon. Ah. dañ lay tëj nga am garaat ñu mën la nommer. léegi yooyu yëpp yaakaar boobu tas Sénégal dem ay bokkoo si bokk si combat bi. yaakaar boobu a tas. yéen da ngeen di fàttaliku bi ñu bëgg a màggal. demoon ngeen reportage fële. nu mu tëddee sax Colobane. Hmm. am xale yu laa leen màggal ngeen ñu fi ba. ñu bari dañoo jàppoon dañuy mbalak mais gise ba màggal gi rombee ba léegi dafa mel ne dañoo takkarnaase bërki démb la marine bi mujjee repêché ñetti gaal démb la ko bërki démb ñetti gaal yu ñu jàpp le neuf waaw yu def bu ci nekk la nga def mat na cent personnes deux cent et kon lañ la doon wax naan la màggal gee ñu fi ba moo ne woon seen dëgg parce que dañoo toj Colobane toj Kër Massar ñu ne la màggal doo nga fi sës géej gi mhm. léegi nag song nañ géej gi autorité nag taluñu leen na ngay lijjanti nuñ defee seen i réforme mhm. nuñ fi nguuroo nuñ toogee ba baax mhm. loolu lañ lijjanti mais lijjanti wuñ leen sax taluñu leen yow musiba naaru laay bu toll nii amul benn ministre bu déplacé wu dem assister lii àndak ñoom ci seen i jafe-jafe. Mm. man de maa ngi koy doog gis lii de bu doon Macky Sall la moom ah kenn waxatul mbiram kon mbir mi rajaxe nañ dëkk bi bu yàgg yàgg yàgg. waaw moom na xaw ma fan la nee moom waaye ma ngi fa tëdd waaye xam naa ne heure bi moom ginnaawam bandang de ndax nag lañ ko doon bañal ñi ngi koy nangul ñii lañ doon bañal Macky Sall ñi ngi koy nangul ñii te mënuñu ci dara force la. par force la boo demandé manifestation ñu lànk soo amee lu la naqari doo wax foo yëngu ñu dugg très boo boo boo toogee si plateau yi ne da ngay kaas boo yaa ngi si réseaux sociaux yi. merci beaucoup boo toogee si plateau yi toog ne da kaas la naqari boo yaa ngi si réseaux sociaux. maa bëgg benn kilifa xëy bàyyil bu suba ba kenn tiwite wax ci gaal gi taxoon parce que mu soobee yàlla dinañ la saaga saaga ba nga tooy xëpp amul kilifa diine amul kilifa aada ku ci wax ci gaal gi ñu saaga la ba nga tooy xëpp léegi nag loolu ba kañ te ay gone koy def balaa bii tànk gone yi tuubaatuñ dellu si waat àndaat ak seen xel wallaay lii du gaaw a jeex. très bien euh, mu nekk lu dëkk boo xamante ne même même tu es obligé d' un pacifien dëkk boo xam même si tu ne pas pacif ñu lay attaqué de la saaga ana démocratie. ana liberté d'expression dëkk boo xamante ne même boo nekkul Pastef sa gars yi dañ lay attaque dañ saaga. Euh, ñëpp noppi kenn waxatul li xew ci réew mi dina ñëwaat mais c'est grave dina ñëwaat ci yow euh, comme yoragoo parole gi fi mu yaa ngi këf sànq ba tey euh, Ibrahima ci wàllu woowu itam la desandi ndax am na le neuf intercepté na ñaari gaal.